jër ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu réew mi FM mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu dellu siwaat ci seen émission pencum euh, réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadir Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité euh, Youssouf Ahmed Bengelloune tur bi nag xam naa bu ween ko déggee seen xel dina dem ci <laughs> conseil départemental bu kaw lak Bengelloune maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di nuyu mbooloom sa auditeur ak waa Sénégal yëpp ñi nga xam ne ne ñoo ngi ñuy déglu. benn euh, Bengelloune yow nga jiite benn mouvement bu tudd euh, Nouvelle Vision euh, pour Kaolack élection locale yi nga demee woon ci coalition ànd nawle nga nekkoon candidat coalition ànd nawle ci conseil départemental bu Kaolack élection yi nan nga ko dundee. waaw xanaa rek sant yàlla rek ak jàmm salaam lañ dundee élection yi nekkoon. moment boo xam ne ne permettre nañu ñu saafante Kaolack waaye jébbal seen programme yàlla def alhamdulilah bu ñu leen bu ñu leen joxee suñu pro programme ñoom ñu adopté ko looloo tax ñu tànn ñu majoritairement teg ñu ci département bi. donc nekk na moment boo xam ne ne maa ngi ciy sant yàlla bu baax moment bu riche la woon en enseignement jàng naa ci nag lu bëri wax dëgg yàlla. Euh, euh, élection yi passé na waaye ba léegi nii mën nañ ne euh, ñoo ngi si prolongation yi yow ñu wax ne yow yaa gagné conseil départemental bi ñu demoon sax ba jàpp ne dañ la war a installé préfet daal di dàqaat loolu mbir mi lu tax lu waral loolu. waaw comme na ngeen ko yéegee rek. élection yi résultat yi dafa génn ñu proclamer que ne coalition ànd nawle bi nga xam ne maa nekkoon candidat bi ci département bi gagné na. avec cinquante et mille voix ñu rawee maanaam benn bokk yaakaar mille sept cent cinquante six voix xam nga ne loolu nekk lu ndaw. Mhm. benn bokk yaakaar jël deuxième. léegi waa bennoon nag notamment suma challenger. bi tey euh, euh, dafa def recours comme nu ko yoon maye daal di koy introduire recours bi nag mu ngi doon euh, contesté ay yenn ci bureau de vote yi. xam naa dinañ ci dikk ci lu tax ci yan argument la dugal léegi nag bu mu defee recours ñun itamit def nañu recours parce que tam ñun gis nañ ne yenn ci bureau de vote yenn yu nekk ci yenn yenn communes rurales yi gis nañ ne affaire dafa am gonflement mu nekk ñaari recours après euh, le préfet nag bu mu gisee résultat yi comme nu ko yoon waxee mu daal di jël décision installé ñu ci noonu la jëlee. benn notification waaye décision dafa jël décision pour installer ñu maa ngi maa ngi ciy dikk. ci noonu la jëlee notification le 8 février daan nañu dinañu installer ñun ñi nga xam ne ne ñooy conseil départementaux yi nga xam ne ne ñoo génn ci résultat yi provisoire yi mu ne le 14 février bi passé ci la ñu war a installer ça c'était le 8 le 12 mu jëlaat beneen euh, kayit. envoyé ñu ne ah installation bu ma bëggoon dama koy dàq ba beneen ndax damaa jot ordonnance premier président cour d'appel bu Kaolack monsieur Ousmane moo ko wax ne ko na dàq installation bi ñu vidé recours bi mu nekk nag lu dooy waar. exception. exception parce que yaa ko wax sa bopp gis nga ne Thiès am na recours te pourtant samp nañ euh, monsieur Babacar euh, Diop. te terewul recours baa ngi dox samp nañ ko ñoom dégg naa sax Thiès audience bi mardi prochain lay doon. Mbacké am na recours te pourtant monsieur Abdou Aziz Ndaw la defe naa président conseil départemental bi samp nañ ko. même même commune Mbacké galo ba euh, Abdou Mbacké Ndaw mi jiite commune def na def na recours te galo installé nañ ko. voilà gis nga donc Abdou Ndaw defe naa ko Mbacké la wax ak tamit euh, ngeen gis ne Rufisque Ismaël Madior mi xam ne ne candidat dafa def recours terewut samp nañ ki nga ki ñu wax ne moom moo a te xam nga ne si le retour recours était suspensif Ismaïla Madior xam ne képp ku fi jàngale droit xam ne fi kàngam droit la ñun ñii di waxantu droit sax ci moom lañ jàngee si le recours était suspensif Ismaïla Madior kenn du ko njëkk a wu ci installation euh, challenger am bi moom it. même cas Pikine aussi. cas Pikine donc kaa yi bëri lu tax nag ñun lu ñu jaaxal lu tax Kaolack nangaan bëgg a nekk une ci Sénégal mel ni Kaolack bokkul ci Sénégal wala bokk. xanaa kii nga xam ne ne moom lañ jàkkaarloo duma ko duma yu métti moo jaaxal gars yi kii nga xam ne ne moom ak ay milliaram ak boîte bu rëy bi muy diriger le directeur général de la Sénélec ak achat de conscience bu mu nekkee woon xaalis bu bëri bi ñu joxe ci campagne bi yëpp ñu jël leen benn xale boo xam ne ne à peine 40 ans ñëw daal di koy gagné xam naa loolu moo leen jaaxal wala boog directeur général bi tamit xam naa dafa bëgg fa sauver mhm. moo tax muy jafandu mais du def lu dul jëlal d'accord guddal jël gi rek. d'accord mais euh, mais Bengelloune li ñu jaaxal tamit te jaaxal sénégalais yu bëree bëri mooy comme ni nga ko expliqué nii euh, même 2014 lu mel noonu amoon na Podor ci euh, ay Tall Sall ñu gis na tamit fi nga xam ne mooy ville bu Pikine mm-hmm. Abdoulaye timboo moom la ñu wax ne moo gagné. Euh, te Cheikh Dieng dafa def recours te teewul installé nañ ki nga xam ne tey moom mooy Abdoulaye Abdoulaye Timbo euh, lan nga jàpp yow ne moo waral loolu ci benn réew boo xam ne gis nañ ne fii lii moo fa am fii euh, safaan wa am fa. waaw loolu mooy jaaxal ñëpp ah man fu mu ne nii lu ma jaaxal mooy ci benn réew ñu bëgg fee indi ñaari catégorie de droit dama ne soit man lañ yëpp. wala bokk comme nu mu koy waxee rek directeur général bi teg na leen pression boo xam ne ne utiliser administration bi ak justice bi looloo waral loolu moo waral lii nii mais nag ñu xam ne du jàll. d'accord léegi moom euh, yan argument la indi moom euh, Pape Demba bi tey. argument yu mu indi ci recours bi dafa njëkk a viser ay euh, bureau de vote ñu nekk commune Kaolack lu ci mel ni Touba Ndorong Ndorong extension ak Medina Baye. ay bureau de vote yi nekk ci commune Kaolack nee nañ bureau de vote yooyu dañoo war a annuler bureau de vote yi ndax nit ñoom nit ñi voté wuñu ndax dafa am ay xaj yoo xam ne ne dañ leen fi indi woon xaj yi ñoo doon tiital nit ñi ba nit ñi voté wuñu loolu mooy premier partie bi mu nekk ay wax caaxaan parce que procès verbaux yi nga xam ne ne mooy firnde lu nit ñi vote ak ñaata voté ak kan lañ voté ci procès verbaux yooyu il est mentionné nulle part que am na benn incident bu xew ci commune Kaolack gisuñu ko ci. RAS lañ ci bind ñoo ngi yor procédure ñun yor nañ ko kon loolu nekk affaire caaxaan beneen bi affaire xaj yi su doon noonu xaj am na ci bureau de vote yi ani force de l'ordre yi fan nañ nekk ñoom wax jooju sax dafay mel ni ne force de l'ordre yi la ñuy saaga beneen xaj yi xanaa dafa xàmme suñu militant ak militant ñoom Pape bi tey mu nekk wax yoo xam ne ne wax ko daanu ci sareet la wax koo xam ne ne dafa doon nalaw gént gis xam naa gént ay xaj rek daal di yeewu ñu nekk duma nañ la duma yu métti mu ne xat bi ma doon génn gën tax ñu duma euh, beneen bi tamit euh, luy wane ne wax ji tegul fenn gis nga lu génn ci Kaolack ndàngaan ak ci bureau de vote yooyu noonu mu wax ne ne nit ñi voté wuñu wala ay militants voté dafa jéggi dayo record historique li génn ci Kaolack voté mm-hmm. gëj nañ ko gis depuis bu Ablaye Wade defal deuxième tour te élection locale nit ñi xamuñ ci woon sax taux de participation bu rëy bii nii la population de Kaolack dañoo génn massivement parce que dañoo am yaakaar ci man ak Serigne Mboup looloo tax ñun ñëpp génn voté ba pare nag sànni ñu carte. d'accord mais mais. Euh, ñu ñu dem ci argument yi du boobu rek ñoom tamit nee nañ euh, ay bureau yoo xam ne ne fu ci mel ni coof yoo wax démb maa ngi koy gis ci jàkka ba ma pare sama ci jàkkaarloo euh, am ku dugg di wax ne. argument yi nekkul xaj rek dëgg la am argument nekkul ay xaj yi mais dañ ne bureau bu mel ni coof dañoo bëgg ñu annuler bureau de vote boobu parce que dañoo constaté que ne nit ñi dañoo voté ba 22 heures ma nekk bureau boobu noonu coof yor vote voté nañ au delà de 18 heures mais dafa amoon arrêté sous préfectoral bi ñu jox autorisation. yor ngeen ko yor nañ ko kay. si coof yor suñ candidat dañ fa am candidat suñ candidat c' est un juriste c' est un lu muy def da koy teg ci yoon. donc loolu tamit ay waxu naxaate la ay wax yu tegul ci fenn la bu dañoo voté au-delà de de 18 heures parce que dañoo am autorisation. Mhm. beneen argument bi nee nañ euh, dafa am bureau de euh, PV yoo xam ne amul cachet SEDA waa léegi su PV su amul cachet SEDA ñun suñu fët la su ñàkk cachet SEDA day tax ñu annulé bureau vote bureau de vote lu am solo kay ci PV mooy wane nañ ne ñii ñoo voté lii euh, ñii lañ voté cachet SEDA kay su ci amu sax fekkee noonu lu ñu wax fekkee dëgg la sax après da ngay dem jël cachet rek da def ci cachet ñu bëgg annuler ay vote jàmm ndax amul cachet ñu wax feneen ne fu mel ni coom bi dañoo jaawale jël ñoom luñ moom. Mm-hmm. jox jox ñu ko ñun ñu jël ñu jël suñu suñu moomeel jox leen ko. Mm-hmm. boobu an seen i nit yi. ñii ay wax ñu daanu ci sare la ñuy wax dafa mel ni ne ñoom nekkuñu nguur gi. mel na ni ñoom amuñu assez de professionnel yi xam ne ñoo ngi doon surveiller. lii wax ku nekkoon ci opposition la waroon doon. waaw exactement loolu laa bëggoon a wax bu njëkk contestation yi ak euh, da na a sàcc ak yu mel noonu opposition bi ñoo ko doon wax léegi bu ñu demee ba ñi nga xam ne tey ñoo yore nguur di ko wax te ñoom ñu organiser élection yi. wax ku daanu ci sareet la rek wax koo xam ne ne ragal nañu dàq ko loolu rek la ak wax koo xam ne ne ku gorodi la wax koo xam ne ku gëm di yàlla la rek looloo tax ñu def lii xam nga waaj dafa yor nee naa la direction générale boo xam ne ne moo gën fukki ministère mais malgré tout un jeune boo xam ne ne il n'a presque pas les moyens daal di koy gagné gagné bu rafet nag malgré sàcc yu ñu ci def yépp nag le nee nañ 1700 voix lañ leen rawee te ëpp na ko sax nag ñun on a que lu ñu leen rawee ëpp na 1700 voix looloo tax sax ñu nit ñu dugal dugal recours dugal recours pour baat askan wi nga xam ne dañu koo dénk parce que duñ nangu baat yi ñuy dénk benn da ciy sànku moo tax ñu nit ñu dugal recours ne leen commune yi ngeen xa commune yi ngeen wax ne da ngeen ko gagné da ngeen ko da ngeen gonfler résultat yi. mu nekk lu garaaw nag. mais mais moom dañuy dégg euh, Pape Demba bi tey mooy wax mais Mahmoud Ndiaye Rahma dafa mel ni moom mbir yi cee noppi. waaw Mahmoud Ndiaye Rahma nag mënul wax parce que moom it sama mag Serigne Boub da ko duma duma métti ci commune bi plus de vingt mille voix rawee nag ko Pape Demba bi tey mii nga xam ne moom doo ko dégg di. second couteau yi rek ngay dégg ñuy wax ñi nga xam ne ne pour man dañoo war a noppi ñoom dégg naa démb ñu ci émission benn émission télévision ñuy génn di wax seen parcours di wax seen CV loolu ban njëriñ la am fekkee ne nañ ne loolu yëpp ñoo ko def ci kaw te bu tànn jotee gars yi teg la ne le amuñ sax fit dama seen liste bopp ñu nekk ñoo xam ne amuñ benn engagement amuñ benn mérite ndax nekk lu du daw ci làqatu ci ginnaaw nit ñi ma ne nañ noppi monsieur Baba Ndiaye yow laay waxal je t'attaque personnellement malgré sama grand nga doon naa doon xaar leneen ci yow man foogoo naa ne sa fula ak sa fayda dina la permettre suñu la bëgguñu la tànn ñu la nga ñëw taxawal sa bopp. mais ñu bari euh, benn zone jàppoon nañu ne benn Bokk Yaakaar day gagné commune Kaolack ak département bi yéen euh, yan argument ngeen teg Kaolack ba ba mën a convaincre askan bi. wax leen dëgg te nag askan bi dafa tuñu xam nañ ñi leen bëgg xam nañ ñu leen bëgg jëriñ ak ñu leen bëgg jëriñoo ñoo xam ne ñun dañoo bëgg a jëriñ Kaolack nag. mu nekk loo xam ne ne vote bii nii lu ma ci gën a neex mooy population Kaolack dañoo gën a wone seen maturité. Mm-hmm. lu ñu doon wax Kaolack Kaolack de bëgguñu dara parti au pouvoir lañ lañuy àndal dans toutes les conditions à chaque fois ci ñoom la ñu àndal. Kaolack gëmuñu lu dul xaalis bii pa xam nga lu fi xew Kaolack. Mm-hmm. ay candidats yu joxe seen xaalis. xaalis boobu ñu jox ñu financé ñu ko sax nag ñun ñu gagné leen man gis naa jeune boo xam ne ne ci candidat yi jox nañ ko 2 millions mu ñëw jox ko sëriñ boobu nekk li maa la ko dimbalee sa donc ka population Kaolack vote bii nii dañoo wane maturité wane ne dañoo mët sëkk luñ doon sëriñ mu ne leen manipuler xaalis mu ne leen manipule dañoo xam ne seen kàddu yi ñoom ñoo ko moom seen bopp. ku ci sëriñ bu ci dugg nag. d'accord léegi léegi léegi diggante bii. nga war nañ la respect mais. Ah. après bu ñu duggee ci Mbagnick Gueye dem nañ euh, voter mais est-ce que woon ngeen ay soutien ci kilifa yi. kilifa diine yëpp ñun lañu àndaloon dañu doon wan ne nii wane nii ci biti ne mais ñëpp. ñu ñu ñun lañu àndaloon dama ne lu ñu gañe Kaolack lii musu am ci Kaolack man rek j'ai u plus de quinze mille voix de plus ci euh, sur mon challenger euh, ci commune bi looloo tax seen wax ju bëri ji yëpp mënuñu fexe ba dab ñu maa ngi dégg ñu def intox di wax ne sur les quatorze communes que compor que comporte le département de Kaolack ñoom ñoo gagné douze yi donc ñoom ñoo gagné mel ni ne mbir mi. ak ku gagné nombre de commune alors que commune yi bokkuñu poids électoral. Uh-huh. te encore loolu ay kàcc la gañewu ñu douze communes yi communes yu bëri dañ leen fa yeneen communes yëpp dañ leen fa dóor ji ci ëpp communes yi ñu gañe ay communes yu ndaw ndawaan yi la mais amul poids électoral boo xam ne mën na tax ñu euh, dabu gab bi nga xam ne ne am nañ ko ci suñu déggante ak ñoom ci euh, scrutin bi. mais est-ce que du ñoom dañ leen euh, xawoon a minimiser début bi. mais loolu moo am dañoo sous-estimé woon moo tax njort naa ne loolu tax sañu def recours bi pour yéexal passation bi ñàkkul. nu ñu waroon defaree seen bagage pour jox ñu ko jox suñu seen lenge yi defuñu ko moo tax ñuy yéexal di def ay recours pour yéexal euh, di def pression sur la justice pour yéexal passation yi mais nañ xam ne ne ça ne va pas passer. waaw mais yow ni ma la déggee benn zone dafa mel ni da nga bëgg a def euh, li nga xamante ni tey mooy euh, da nga bëgg a def règlement de compte. non bëgguma def règlement de compte loin de loin loin de moi cette idée. jeune du ma def chasse sociale parce que tamit euh, Kaolack ñoom ñëpp sama njaboot tey mu neex leen mu naqadi leen ñoom ñoo ñoom maa seen kilifa tey jii ne ci Kaolack parce que man may président conseil départemental bi donc damay ñu su ma ñëwee incha allahu rabbi dañuy yéexal jël bi rek mais ba su ma jotee ci kële conseil départemental bi incha allahu rabbi duñ def lu dul rek indi jàmm ci kaw Kaolack ñu def règlement de compte duñ def chasse euh, chasse euh, nu ñu ko waxee en tout cas. Euh, waaw chasse aux sorciers duñ ko def incha allahu rabbi. d' accord léegi diggante bii ñu toog. recours beeg yooyu. Mm-hmm. conseil départemental bi fonctionné wul. lan mooy conséquence yi. waaw mais gën a yokk jafe-jafe kaw rek parce que conseil départemental lu ci aajo dafa bëri. hôpital bi ci la nekk stade bi ci la nekk collectivité locale yëpp a war a bañ a fonctionner wala boog yëpp mën na am vacance ba mu des suñ conseil départemental bu Kaolack bi ndax Kaolack ndànk dañoo sonn. Kaolack Ndangaan dañoo nekk ci jax euh, ci jafe-jafe donc suñ conseil départemental bi dafa war a fonctionner xam nga le recours n'est pas suspensif loolu la koy wan rek ne dañoo bind ci code électoral que ne première réunion conseil départemental dafa war a intervenir 15 jours après proclamation résultat donc loolu mooy wane ne le recours n'est pas suspensif waxuñu recours ou pas recours dañ ne carrément ci code bi que 15 jours après. Euh, proclamation résultat euh, la première réunion conseil départemental dafa war a intervenir donc foofu nag ma interpeller le préfet di ko wax ne responsabilité am la lay engagé suñu bañee samp parce que nag moom dafay nekk pour appliquer loi warul làqatu ginnaaw benn ordinance pour bañ ko appliquer parce que nag dafa am en lu ñuy wax pyramide des normes maanaam texte yi nga xam ne ne moom la ñu war a appliquer dañu sutante constitution su nekkee ci kaw loi moo ci tegu après nag juge euh, jugement yeeg euh, acte yi jógee ci juridiction yi doog cee. Euh, doog a ñëw donc entre une ordonnance et une loi c' est la loi qu'il doit appliquer monsieur le préfet maa ngi lay wax nga jël ses responsabilités te mbir mi duñ ko bàyyi noonu parce que nag yabaate yi dafa war a jeex. Mmh. waaw léegi léegi benn zone li ma si jaaxal tamit mooy. lan moo tax ñu installé sëriñ boobu te yow installé wuñ la. te ngeen bokkoon benn coalition. waaw loolu laa lay wax nekk loolu mooy. beneen incohérence parce que dañ ne mun njaarax ma deful contestation wala boog recours bu ñu def du am benn incidence ci euh, ci ngañaayi Serigne Mboup parce que Serigne Mboup 20 000 voix la rawee waaj xam nañ moom mënuñu muus màcc ba euh, trouver gab boobu noonu. non mais mais fa ñuy wax Fara Khadja nekk amoon na euh, vote communal. mais loolu ma la concret am na vote communal te fekkee na yooyu noonu dañ ko nar a annulé ça veut que le nombre de conseil Serigne Mboup yi day annulé mooy. loolu mooy lu muy tekki rek mooy le juge sincèrement il n'a pas dit ici le droit beneen may wax gis nga ci euh, code électoral bi dañoo wax ne à chaque fois la cour d'appel la wax il n'a jamais été dit le président de la cour d'appel maanaam juge cour d'appel fii mënul toog ci bureau rek jël benn décision lépp lu muy def décision c'est en assemblée générale la koo war a jëlee ci waa matière électorale xam nañ bu baax lu ñuy wax maanaam en matière électorale c'est la cour qui a des compétences et pas le président de la de de, de la cour. Mm-hmm. moo tax encore une fois monsieur Ousmane Kane avec tout le respect que je vous dois maa ngi lay ñaan nga dellu ginnaaw ci ordinance bii nga jël. ñu defee kon en 2014 naka sa homologue defee woon en 2014 am na say naataango yoo xam ne ne dañoo jëloon ordinance interdire ay euh, ay installation. après ils se sont rendu compte que def nañ erreur ñu xam ne nit day juum te nit ci lu muy liggéey rek lay juum ñu dellu ci ginnaaw ñoo ngi lay ñaan nga am même attitude juumte bu mag a mag la moom ci boppam xam ne ne dafa juum ne dafa juum tous les grands spécialistes du droit xam nañ ne en matière électorale le recours n'est pas suspensif may wax tamit ne ñu may déglu ñëpp ñu xam ne ñun bañ ñu yoon def liggéeyam yoon na def liggéeyam parce que sax ñun loolu moo ñu arrangé parce que ñun su yoon incha allah dina feeñ da xam ne ne gars yi dañu tojowoon ay voix yoo xam ne ne dañ ko randaloon te incha allah dana génn suñu nomb de conseillers dina yokk ñoom seen conseil wàññeeku waaye yoon na def liggéeyam waaye bu mu tere administration def liggéeyam yoon na liggéey mais bu mu tere keneen def liggéeyam le judiciaire doit être séparé de euh, l'administratif loolu moo jaadu ñuy wax ne ne dañu bëgguma yoon def liggéeyam dama bëgg yoon def liggéeyam mais bu mu tere kenn def keneen def liggéeyam yoon def liggéeyam terewuñu samp ma nañ ma samp ba pare yoon continuer man nag lii lu mu ci njoxtu mooy dañoo bëgg def forcing bëgg def hold up xam na ne suñ ma sampee dootul yomb. comment ah mais nit ki soo ko sampee ba pare xanaa loo jubadi jubadi jubadi da nga jëlee ko fi du yomb de su fekkee ne tegoo ko tegoo ay argument de droit. yu wóoru ak tegoo ko fen loolu la tax ñu bañ ñu samp parce que dañoo narul njub mais su doona ñëw wóolu nañ seen bopp que ne ne euh, affaire dina leen jox dëgg nañ def lu yoon wax yoon dafa ne su recours amee. candidat bi ñu wax ne mooy gagné dañ koy samp suñu demee nag ba ci recours bi fekkee recours bi da ko favorable ñu bàyyi ko mu liggéey su ko recours bi défavorable su ko recours bi ñu simpi ko loolu la yoon wax léegi léegi euh, président euh, cour d'appel Kaolack moom euh, yan argument leen tegal yéen nee na nee na lu muy bañ mooy recours bi lu muy bañ mooy après recours bi suñ ma samp suñ ma sampee recours bi défavorable ma après ñuy ñëw di ma simpiwaat neen balaa caag laa ñu xaar ba yoon wax lu muy wax ma ne ko moom mbir mi kenn laaj ko ci xalaat dañ ko mu appliquer la loi day xool lu yoon wax mu def ko yoon nag moo wax ne le recours n'est pas suspensif maanaam su coo euh, su contestation amee ci wàllum élection dañ samp mbër mi nga xam ne ne moom la résultat yu joxe léegi nag ñoom ñu saytu suñ saytoo gis ne mbër mi moom la ñu samp te samp nañ ko ñu bàyyi ko mu liggéey fekkee ne nag dañoo defoon erreur ñu daal di koy sempi. léegi say avocat ban taxawaay la ñu am sama avocat taxawaay bu mat sëkk la am bu ci njëkk. mooy ordonnance bi nga xam ne ne dañoo gis ne dafa war a génn ci ordonnancement juridique bi maanaam dañ ko war a suprimer dinañ ko attaquer incha allah pour ñu supprimer ko beneen bi mooy incha allah audience bi ñoo ngi préparé pour joxe suñu argument yi nga xam ne am nañ ko par rapport recours bu fantaisiste bu benn waa benn bokk yaakaar ñun taxawaay bu ñu ci amoon tamit mooy cette bataille médiatique la dem ci nit ñi yëgal leen lu xew ñoo ngi koy def ñoo ngi dem ci plateau yi wax ko tey jii nii. yépp xam nañ ne Kaolack lu fa xew jaadul yoon dañoo bëggoon jaay doole un jeune boo xam ne dafa gëm boppam dañoo bëggoon jaay doole un jeune boo xam ne dafa bëgg gëm askan Kaolack ndax gëm askan Kaolack ak gëm boppam moo moo tax mu am fit présenté liste contre benn Benno Bokk Yaakaar su bëggoon du yomb bëgg lu nooy day dem ànd ak nguur ga. waaw mais euh, Ahmed benn euh, Bengelloune yow élection locale yi. Mm. Euh, da nga bàyyi ba élection locale yi ñëw rek nga dem ci coalition ànd nawle wala bien avant les élections un an ou deux avant yaa ngi doon def politique ci Kaolack. maa ngi commencé politique avant 2012 président Macky Sall bu mu koy jàppale nekkagul faloogul 2012 bokk naa ci ñu ko fal. Kaolack Kaolack mais après dama créé son mouvement ndax nag lu ma gisoon APR Kaolack doyuma. lu tax APR fépp comme fépp ni ñu ko xamee rek dafa nekk parti boo xam ne ne des naa ubbeeku. te pourtant dafa bëri leader foofu. waaw dafa bëri leader bëri na leader des na nekk ma lu ma jàngoon lu ma yaakaaroon ci politique gisuma ko ci APR Kaolack mooy dama foog ne su ma fi ñëwee dinañ ma jàngal ma fa dara dama dem réunion gis ay nit di dóorante ay kurpañ di xeex ma ne lii lan la ñu lii mooy politique man man politique bi moom taxumaa jóg parce que dama dund ba am 33 ans jamono yi 33 ans laa amoon xeexuma may new ñëw ci politique di xeex kon boog fekkee lii mooy politique man politique bi man taxumaa jóg ci sama mouvement. tuddee ko ñu nekk ci depuis 2012 2014 jot élection locale jot ma dem xool kan laa mun munoon ànd ci Kaolack ndàngaan kan la ma programme gën a doy ma ànd ak moom yàlla def boobu bu ñu demee en tour ñu jël deuxième cette fois si ma ne woon candidat la dépose sama caution xanaa kon man gëm naa sama bopp. mais est-ce que tenté woon nga pour nekk candidat benn bokk yaakaar. jéem ma ko nag sax nag parce que man bokkuma benn bokk yaakaar je soutiens le président de la république mais benn bokk yaakaar je de la mouvance présidentielle mais bokkuma benn bokk yaakaar. parce que dama gis nañu doxale gis fu leen population Kaolack te parce que nag c'est une coalition boo xam ne qui a été vomi euh, par la population de Kaolack. Benno Benno ah mais nooy expliquer seen euh, coalition bu rëy boobu noonu ak ñu ci nekk ponk ci nekk yëpp ñu ñu ñu dóor leen dóor yi métti yi nii. léegi ni nga waaj élection yi. waaj ku nekk ci terrain bi dem waxtaan askan wi yàgg leen jàppale nag amul domaine booy wax ci Kaolack ndangaan ci lu baax def ñun suñu loxo dugg ci ñun waa Kaolack Nouvelle Vision ñu lebe leen démb tey moo tax ñu bëgg a fay ko ñuy fay ko tey. tey na askan wi ñu lebaleen démb ñu fay ñu tey Pape Demba bi tey nekkoon ci ay nalawam ñëw ne dañu koy xañ ak ñu muy àndal ñoo xam ne ne ay euh, soo gisee ñu yor euh, xeex Pape Demba ñoo xam ne ne ay parti yoo xam ne lañ ay xañ nañ ci boîte allumette ak ñoo xam ne ne amuñu benn fit amuñu benn courage nekkuñu lu dul di daw ci ginnaawam pour ëllëg kon fu yaakaar na ne dinañ continuer nekk ci conseil départemental di ko gérer par intérim ñoo ñoo ko wër ay ñoo xam ne amuñu benn engagement ñooñu ñëw tey ne ne suñu ndam lu rafet gi dinañ ko xajamal non ça ne va pas passer. d'accord mais euh, Youssouf Ahmed euh, Bengelloune yow ci wàllum politique. Mm. am na ñu bari ñu doon tudd ñu doon tudd Kaolack. Mm-hmm. ñoo xamante ni tey euh, ay leader politique lañ euh, nga ñëw gagné leen. Mm-hmm. ci élection yi. loolu lan lay joxe après. waaw loolu may wane rek ne que Kaolack besoin de changement ñi ñi fi tudd nii rek na ñëpp nag ña ngay wax noonu ci Kaolack yàlla xam leen amul ku ñu ci ëpp baas mais ma dama préféré woon liggéey ba nit ñi xam ma mais préfère moo nekk ci rajo di mel-mel ba nit ñi xam ma te le terrain m'a donné raison gis nga sëriñ Mboup ku ñëpp xam ne borom xel la su doonoon je suis n'importe kii du ma tàllal loxo ba may samp ci département bi Serigne daw ma dem wuti ji ko moo dem ñëw wuti si ma nu ma ñëwee am na même Baba Ndiaye mi il a essayé de travailler Serigne Mboup sottiwut parce que Serigne dafa xam sama taxawaay xam lu ma ki ma doon xam euh, sama sama sama sama dayoo moo tax mu ñëw proposé ma ci département bi yàlla dimbali ñu rusloowuñu ko nag benn yoon. waaw mais mais ñun ñoo woon ci presse bi mais euh, sa tour mhm. tolloon na moment yoo xam ne desoon naa fës ci wàllum politique gu Kaolack. waa mooy euh, loolu lu ko waral mooy comme nu mu koy faral di rek ay deformation professionnelle da cee xam nga je suis un tàmmul di fës. sama déformation professionnelle boobu moo taxoon préféré moom di communiquer mais dama nekkoon ci base bi nag waaw waaw fépp la am sama mouvement fépp la am ci kaw la quartier bépp am na fa cellule commune yëpp am naa fa ñu ma fa nekkal ma nekk ci terrain bi di liggéey donc déformation professionnelle moo taxoon nekk moom di communiquer mais communiquer ça ne pas dire que ne ne liggéeyu moon mais mais mais du coalition euh, ànd nawle moo la moo la yóbbu fii. ànd coalition ànd am na lu ci def ndax tey jii nii su ma nekkee. Euh, président conseil départemental ñoom ñëpp ñu ànd mais tamit dama indi dama indi ñu indi coalition loolu mooy njëriñ ji da ngay indi sa moroom indi ngeen booloo coalition ànd nawal tey ñoo ma teg ci présidence conseil départemental waaye nag dañoo fekkoon ma liggéey ba pare ñu ji ñu jël la ma indi ak ñoom lu ñu am ñu boole ko moo indi lii indi yóbbu sëriñ boobu ci commune bi yóbbu ma ci département bi moo tax nag maa ngi remercier coalition ànd nawle ànd yëpp di leen seen taxawaay jàppale bu ñu ma jàppale waaye ak ADK mi nga xam ne nag président Serigne bi moo ko jiite mooy mouvement personnel am euh, bi nga xam ne moom la teg ADK bu ñu ma choisir ñoom wax dëgg yàlla tamit ñu nangu nangu choix boobu noonu. d'accord mais mais euh, lu tax tey sànq sa biir wax ne nga politique bi nga def politique sociale la dem euh, gisanteeg nit ñi même Serigne boobu aussi du koo xam ne mën nañ koo tuddee homme politique. comme ni ñu nekk ci yeneen parti mhm. lan moo tax ngeen ñëw tey. Mhm. débloqué tey ñoo xam ne. Euh, dañu nekk ci ay ay acteurs politiques lañ Kaolack ñoom ñoo pare ci euh, benn xeetu politique bi wala. waaw loolu moom kenn waxatu ko xam nga comme na nga ko gisee partout dans le monde rawatina fii ci Sénégal politiciens classiques yi politiciens professionnels yi moom gars yi wan nañ leen ginnaaw dañoo bëgg changement ñu ñu bëgg mooy ñoo xam ne ne dañoo jàpp ci leneen ba pare ñëw di politique maanaam jëluñu politique bi def ko liggéey ñoo xam ne ne su dul politique du existé wuñu non non gars yi bëgg ñoo xam ne ne dañoo ñëw ci politique ngir indi mais pas ñëw ci politique ngir jël loolu la ñu wane fii xam nga sëriñ boobu moom doonoon na ku mu doon ba pare avant politique bi man mii di Ahmed Youssouf Bengelloune yàlla nga may dimbale ci sama liggéey soxlawu ma dara politique politique taxul ma dawal oto politique taxul ma am kër politique taxul dem màkk au sax lépp lu mu tey mën naa gis naa ne tey jii nii su ma eggul fenn fi sax politique a tax lépp lu ma am def def ci politique ma jox la exemple ren. ci campagne bi ni ñu ko defoon 2014 noonu la ma ko defee te samay doom dañ leen dàq école parce que lépp lu ma leen waroon fayal dama jël ko dem dama ko jël campagne ko. wifi sax aw koon sama kër sama kër dañu coupé woon sax wifi bi pour wane na ñun engagement bu ñu amoon. léegi euh, benn Bengelone euh, organiser ngeen démb ab marche. Mhm. lan moo waral euh, marche boobu noonu. marche bi lu taxoon ñu organiser ko mooy pour wan ñi nga xam ne ne. ñooy acteurs yi ñu ñu war a installé que ne jeunesse Kaolack femme Kaolack taxaw nañ ak góor ñi ñoom ñëpp taxaw nañ nañ ma installé c'était pour dire au préfet que ñu installé ñu parce que yoon moo ko jox obligation mu installé ñu mais remercier nag autorité administrative yi nag parce que nag mënoon nañ bañ a autoriser marche bi mais autorisé nañ ko waaye dañoo xam ne ne suñ ko autorisé wuloon tamit day métti waaye dinañ marche parce que ay jeunes yu ak ay jigéen yu déterminé nga ciy gis gis ngeen image plus de 3000 personnes étaient présentes là-bas 3000 personnes yoo xam ne amoo kenn koo ci jox 1000 francs ñu fa ñëw foofu noonu du kenn ku ñu jox benn dërëm ñun duñ politique noonu ñoom ñëpp ñëw parce que dañoo am engagement. donc marché bi dañ ko organiser pour lancer un message lancer un message au préfet ne mu jël responsabilité am c'est pas parce que il y a eu une ordonnance que waruma comme nu mu ko waxee à Saint-Louis en 2014 le préfet l'actuel gouverneur Alioune Badara Samb dañ ko joxoon ordonnance ne bul samp Mali euh, Mansour fay mu ne il a déchiré l'ordonnance du pas déchiré c'est trop dire en tout cas il a il a il euh, ne du appliquer ordonnance bi parce que le juge amul pouvoir ne ko bul installé wala installé ci wàllum élection mu daal di ne day installé Mansour Faye après juge bi daal dellu ginnaaw daal di koy daal di annuler ordonnance am préfet dafa waroon am attitude boobu noonu tey je le tiens responsable waa préfet Kaolack Ahmed Tidiane Thiaw je cite son nom parce que nag dafa waroon jël responsabilité historique am samp ma comme na ko yoon waxee commencé woon na ko nag il avait bien débuté ba ñu def séance de travail mu ñëw ne ko man sa rakk la maa ngi lay dénk sama bopp ci liggéey bii nii ma ne ko nag recours bi ñu wàllum recours bi loo ci euh, ñu waxtaan ba egg ci recours bi mu ne ma recours bi terew ma def sama liggéey man républicain la yoon moo ma jox obligation ma samp la dama lay samp ñaari mbir moo mën a nekk nag recours bi antuwul ma bàyyi la nga liggéey recours bi nag su fekkee ne dafa antu ah ku am pouvoir installation am na pouvoir des installations lii la ma préfet bi wax. nga d'accord naa mais bien sûr loolu amul lu may d'accord yow jii nii suñ dem suñ sëñ bi dañ maa war a samp su ñu demee bañ ne gis na ne ma faa nekk ñu dindi ma mais samp gi moom. mais mais yow sa problème du problème mu recours bi mais problème installation. problème installation du problème recours bi non tiituma ci ragaluma ci te euh, wax dëgg yàlla parce que xam naa ne le droit est avec nous la volonté populaire est avec nous l' exprime euh, l' expression de la volonté populaire tamit wane na ko moo tax tiituma ci. man awma problème ak recours bi. léegi marche yi ngeen organisé nii démb ci euh, vendredi bi Kaolack. Mhm. ñu gis nit ñi génn nañ léegi da ngeen yem ci marche boobu wala da ngeen bëgg a def ay série de manifestations. ñaanatuñu yàlla marche ci parce que xam nañ ne dinañu préfet dinañu dégg déglu nañ nit ñi dégg nañ nit ñi ñaa yaakaar nañ ne fii la yem parce que quand nag jàmm moo gën lépp euh, waaye nag ñoo ngi leen wax ne duñu bàyyi xeex bi. tant que installé wuñu dañ ñoo war a installé xam nga lu tax war ñu installé contentieux bi mun na bañ am ci cour cour d'appel rek parce que tey jii nii suñ génnee résultat yi waa Benno mun nañ euh, bañ a kontaan ci résultat yi. daa di daa dem cour cour suprême comme ma ne mën naa ci bañ a kontaan daa dem cour suprême pendant ça tout ce temps là dañuy bàyyi conseil départemental bañ a fonctionner. ma joxaat un exemple rek ci cas Podor Aïssata Sall euh, résultat provisoire ko joxoon ne dafa gagné Racine Sy def appel. après cour d'appel daan ne Racine Sy moo gagné Aïssata Tall da daa def cour suprême daa dem cour suprême cour suprême daan ne Aïssata Tall euh, daa da koy delloo ndam li gis nga loolu imagine toi ñaata weer la jël suñu installé woon suñu installé wuloon euh, Aïssata Tall kon Podor day nekk en vacances ñun vacances boobu nag ñun at Kaolack attanu ko Kaolack tout est urgent Kaolack dama ne dañu war a liggéey vingt cinq heures sur vingt quatre. léegi lan moo tax nga ne huit jours sur sept sax la lan moo tax nga ne bëggatu leen a manifester. non dama ne dama xam ne ne gars yi dinañ ñu déglu. su dee réagir mais suñu réagirut après nag on va évaluer ñu xool lu ñuy lu ñuy def soo laajee manifestation ñu def nag manifestation bu gën a rëy bii nii leen daal laa leen di wax ne gis nga nit ñu génn dem ñëpp luyee ñu ci kenn jënd ñu ci kenn ñu ñu am engagement lañu seen message leer na le message bu ñu lancé mooy la population de Kaolack Ndangaan a choisi Ahmed Youssouf Bengelloune devant un multimilliardaire boo xam ne ne dafa noonu ñëw di jënd di jënd carte ñi malgré tout ñu choisir ñoom nag nee nañ ndaw ñi lañ tànn kenn du jël seen vote boobu noonu di ko salfaañee su doonoon sax ñoom dañoo am ay carte yu ñu leen yu ñu leen compté wul ñu ne waa mais ñoom lu ñu bëgg fu ñu bëgg a jaar pour gagner mooy éliminer ay voix ay ay kaw la ko mel na ne ñooñu ay kaw la ko d'accord léegi euh, Bengelloune dafa am benn euh, cas boo wax nii muy euh, dafa am candidat yoo xam ne même du kaw kese fu bari ci Sénégal gisoon nañ candidat yoo xam ne ñii ay milliardaires lañ ñii génn nañ xaalis bu baree bari te te te te voté luñ leen kaawu Kaolack bi tey ma nga fa Rahma ma nga fa waaye gis nañ ko feneen ak feneen boo xoolee ci Dakar Euh, boo demoon tey golfe sud Lat Diop ma ngi woon foofu nga dem Medina Cheikh Tidiane ba euh, ma ngi woon foofu euh, boo demee tey jëppal Sadir Bey ma nga foon ñu gis na daal am na si ñoo xam ne tey génn nañ xaalis am nañ benn taxawaay bi dénk nañ leen ay ay direction yu mag a mag a mag te teewul dañoo ñàkk yow ban analyse nga ngay def foofu. waa analyse analyse nag mënuñu koo boole lu ci kaw rek lu ci Dakar Dakar nag d'habitude dafa nekk ville boo xam ne opposition moo ko moom mais contrairement ak Kaolack moom en général parti pouvoir ak doon gagné moo tax suñu victoire historique. Hmm. moo tax suñu victoire historique tey ñu bëgg koo xañamal danaa ñëw sa réponse euh, Kaolack dafa wane carrément que ne xaalis wa war a maturité politique mais à Dakar moom ça a toujours été le cas. waaw mais Kaolack est-ce que te ñoom ñoom est-ce que Kaolack. Hmm. du ñoom. Hmm. Euh, état central. Euh, est-ce que du état central lañ ma kon. xaw ma ndax état central lañ ma ne parce que état nekk nekkul état central moo fa nekkoon candidat mais daa xam naa la Benno Bokk Yaakaar moom est vomi par la population de Kaolack en tout cas daa xam naa ne moom les deux candidats de Benno Bokk Yaakaar ont été vomis par moom la ñu wan ginnaaw wala candidat yi fa benn Bokk Yaakaar samp ñooñu la Kaolack waa yi amul amul amul euh, amul euh, yaakaar si ñoom. ñoom ñëpp la ñu wan ginnaaw candidats yi ils n'ont pas su ils n'ont pas su polariser. ñi yeneen leader yi nekk benn bokk yaakaar foofu man jàngat boobu laa ci am waaye tamit benn bokk yaakaar ci boppam la waa kaw Kaolack àndalut ak candidat yi. kon yow jàpp nga ne ku ñu fa mënoon teg mu ñàkk. ku ñu fa mënoon teg jàkkaarloog ñun dañ lay duma ndax nag waa Kaolack ànd nawle ànd liggéey lañ wax. mais est-ce bi yéen amoon ngeen ko. mais suñ ko amuloon dinañ jël suñu million def ko euh, euh, dépensé suñu alal def ko ci. man nee naa la awma dara waaye lépp lu ma am sama mbokk yi lépp lu ñu am jël nañ ko daal déposé caution man rek dama doon dem candidat laa woon déposé kan mooy dem ci xare di def autant ak politique nu mu méttee lu mu laaj ci moyen nga def ko ci te yaakaar yaakaaroon gañe man depuis le début dama xam damay gañe man rek sax su ma demoon sama bopp dama leen di gañe mais dama xam ne mbooloo mooy doole ñu ànd ma gis sama mag sëriñ boobu ñu ànd daal di nekk benn parce que nag sëriñ mënul wax ne day defar Kaolack ma ne ma ne damay defar Kaolack ku nekk di ber sa langue boole ci sama ànd ak moom c'était une demande sociale fépp fu ma dem dañu wax àndal ak sëriñ àndal ak sëriñ sëriñ tamit fépp fu mu dem ñu ne ko àndal ak benn jeune moom ci boppam mu am mag mu am mët bu ma sëkk nag mu nekk koo xam ne kilifa la mu ne ma yow sama rakk maa ñëw jël si la. mais mais est-ce que yaakaar boobu kaw la ko waay am est-ce que duñu am déception. incha allahu rabi de ñun ñun de dinañ def tout ba duñu am déception mooy nan dinañ fexe seen soxla nu ñu taxawee ci en fonction des compétences yu ñu dénk en fonction des moyens ñu am en tout cas lu mu yaakaar boobu mënul tas ndax lan koo xam ne ne dafa doon raam di la bokk bés bu amee tànk du la fi bàyyi ñun lépp lu ñu am dañ ko defal Kaolack ndongo lépp lu ñu am yóbbu nañ ko Kaolack tey suñ demee bañ dénk ñu Kaolack dinañ def tout loo xam ne ne ah, euh, dinañ def lépp pour seen yaakaar googu nu bañ a tas mais benn jaloon tey est-ce que yow ak Serigne mhm. am ngeen jot ak seen liggéey est-ce que am ngeen jotu toog ci mairie bi ak ci conseil départemental bi bien sûr bien sûr mais ñun euh, amuñu leen lu dul Kaolack ndangaan suñu liggéey lépp affaire organisation la affaire bi nekkul euh, lu ñuy personnaliser c'est une institution c'est une équipe ñun muy ko équipe municipale bi équipe euh, départementale bu ñu posé Kaolack ku képp ci ñun ci euh, su doonee maire bi ñu ko composé ñëpp mënoon nañ nekk maire soo ñëwee ci département ñu ko composé woon ñëpp mën nañ nekk président conseil départemental parce que ay ressources humaines yu am solo fa nekk ba tax na ne kenn ku firi mbooloo la mbooloo buy kenn la incha allahu rabbi y aura pas de problème à ce niveau là kenn ku uteewu nag keneen morom mën na ko remplacer. seen xel na dal. mais yow am ngeen euh, euh, Kaolack tey dëkk la boo xam ne ñu bari nee nañ euh, dëkk la boo xam ne naqariwut a defar. Mm-hmm. est-ce que yéen jàpp ngeen ne fii at. Mm-hmm. satisfaction dina am. ak bu dee nan ngeen koy defee. mais incha allahu rabi si on a aucun blocage te blocage du am nit ñi dinañ gis changement ci visage Kaolack ndàngaan ndax nag ñun muy man di sëriñ xam nga lan la ñuy wax. élection yii di ñëw yii nag wees ndax wees na ñii moom gagné nañ ko ba pare gars yi ñooy jéem guddal jël rek mais euh, bañ nangu euh, moom incha allah daan nañ leen mais élection yi di ñëw fas yéene ñoo campagne suñu bilan moo ñu campagne donc te bilan bi nag léegi ngay commencé di ci liggéey incha allah. léegi wax nañu tuuti si seen programme. waaw programme bi su ci lu ci mel ni ci département bi dañoo am benn programme boo xam ñu ngi ko tuddee woon naatal département Kaolack Ndangaan vision Kaolack Ndangaan am un développement durable à travers une résilience écologique une prospérité économique mais également un épanouissement social maanaam dañoo bëgg Kaolack Ndangaan am yokkute boo xam ne day sax dakk loolu mooy développement durable jaarale ko ci alam bu mucc ayib ci koom-koom bu naat mais tamit ci nekkin askan bu ànd ak tawféex moo tax suñu programme yi ñett ak la woon muy bu ci njëkk faire de Kaolack une ville écologiquement résiliente maanaam fexe faire département Kaolack mu nekk dëkk boo xam ne ne alam bi day mucc ayib ñett ñaareel bi mu nekk dëkk boo xam ne ne day am koom-koom bu naat ñetteel mu nekk dëkk boo xam ne ne nekkin askan wi day am tawféex loolu moo ne woon suñu programme programme bi nag euh, li mu lay wax noonu bu ci nekk axe yii ni bu ci nekk am na ay action yoo xam ne des actions phares yoo xam ne dañ ko fas yéene def pour atteindre ko fu ci mel ni faire de Kaolack une ville éco euh, écologiquement résiliente maanaam fexe ba Kaolack nekk dëkk boo xam ne ne day am am euh, alam bu mu ci ayib dañoo seet que ne Kaolack ni ñu koy bàkkee mu dëkk boo xam ne des naa set hmm. Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne dafa tàng te tàngoor boobu noonu ak salté boobu yëpp am nañ euh, am na solution tàngoor ba tàngoor yàlla la waaye soo béyee soo ji jiyee garab def jëmbat bu am solo li ñuy wax reboisement hmm. na wàññi tàngoor bu baax a baax moo tax suñu programme dañ ne dès notre premier mandat danañ fexe ak Kaolack reboiser ci au minimum ci département bi 800000 arbres incha allahu rabbi dinañ fexe ba toujours tamit ci écologie bi dañoo gis ne Kaolack xorom si moo ngi nangu suuf si ba lu toll ni 27000 hectares suuf béykat yi mënutuñ ko jëfandikoo dañ ne suñu premier mandat dinañ fexe 27000 hectares yooyu noonu nuñ ko récupérer mais tamit ba lutter Euh, langue salée bi bi am Kaolack. d'accord loolu mooy ci wàllum écologie bi waaye tamit ci wàllum toujours écologie ci wàllum set ak setal bi dinañ créer bëgg nañ créer ay unité de transformation yoo xam ne day déchets des déchets solides ba xam ne dañ koy transformer en pavage loolu suñ ko defee non seulement dinañ am pavage pour pavé dëkk bi dinañ ndaw yi dinañ ci liggéey parce que mën na unité yi mën na jël plus de 5000 personnes mais également dina lutter contre poussière bi ak tamit moo xam ne ne am njeexital ci wàllum santé santé publique loolu mooy ci àll yaa ma laaj sama programme xaju fii ci euh, programme donc programme bu riche nga gis ne <laughs> programme bu riche amoon mais est réalisable on l'a chiffré programme yi c'est on l'a très réalisable ñun ñëw ñu ci Kaolack pour nax nit ñi li ñu wax ni yëpp ay action yoo xam ne la tey tey tey suba suñu joxoon département bi suñu joxoon caabi département bi ñu ñu mu commencé doxal moo tax ma ne waa Kaolack yéen ñëpp génn leen ñii seen jafe-jafe lañ bëgg parce que programme bi am euh, ambitieux bii ñu leen yéene doxal ko ba ngeen adopté ko ñoom lañ moom lañ bëgg a moo tax ñuy yéex a jël bi génn leen ngeen imposé ni ñu samp ñu parce que nag suñu programme bi dafa am solo lool. d'accord léegi yow euh, après élection locale yi législative mi ngi ñëw ba est-ce que jàpp nga beneen taxawaay. waaw xam en tout cas lu may mën a wax ñun ay acteurs politiques lañ fas yéene tuñu am benn élection bu fi jàll te duñ ci am taxawaay naka lañ ci taxawee nag su moment bi jotee dinañ ci wax. incha allahu rabi pour l'instant combat politique bu ñu mënee mooy notre installation. installer lu nouveau président du conseil départemental de Kaolack monsieur le préfet loolu la ñu wax. Mhm. suñu installé ba pare nag ñu waxoon beneen combat bu ñuy mëne mais daal lu leer mooy élection législative bi moo incha allah dañu am taxawaay. mais yow nee nga président Macky Sall ngay euh, ngay jàppale. sa mouvement bi Kaolack euh, nouvelle vision tey par exemple tey bu gisee ne am nga benn taxawaay Kaolack ba gagné conseil départemental bi élection bu ñëwoon tey mu woo pour nga bokk ci liste benn bokk yaakaar bi lan mooy nekk sa taxawaay boobaa. dama ne foofu tolluguñ ci sëñ bi fu mu nekk ni fu ñu toll mooy ñu samp ñu suñu sampee ba pare rek ñu doog wax beneen combat. daa d'accord mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu quinze h jotee jàpp 16 tey ñu dalal nag euh, Ahmed benn euh, Bengelloune mi nga xam ne moom mooy jiite conseil départemental bu Kaolack te ba léegi ni préfet installé gu ko démb ci ajuma ji ñoom ñu amaloon li nga xamante ni tey mooy ab marche mais Bengelloune est-ce que dem ngeen. seeti kilifa yooyu maanaam bu ginnaaw bu ngeen demee ci wàllum yoon wàllum mm, jàmmoo tamit comme yéen a bokk seen Kaolack. yan kilifa. kilifa diine yi nekk foofu. waaw ah, incha allah loolu tamit euh, lu ñuy def la en tant que président conseil départemental nouvellement élu semaine bii di ñëw danaa def tour xalif généraux yi nekk Kaolack ak yu nekk ci Sénégal bokk na tamit ci xeex bi pour euh, wax leen li xew Kaolack. ginnaaw bu mu leen ziyaare remercier leen ci ñaan gi ñu ñaan ndax élection yi quoi qu'on puisse dire xew na ci jàmm ak salaam bu xanaa kay ñenn ñi ñoo dem ba ñàkk rek bëgg ñànk di wax ne dafa amoon ay incident benn incident mu fi ñoom élection yi xew na ci jàmm ak salaam te loolu suñ ko amee mooy ñaan gi ñu ñaan moo tax naa ñoom ñëpp remercier leen ci ñaan googu ñu ñaan ba élection yi am ci jàmm dénkalaat leen sama bopp waaye tamit wax leen forfaiture yu ñu gis Kaolack mooy ñàkk installé bu ñuy ñàkk installé te Sénégal nekk benn Sénégal on peut pas comprendre am ay dëkk yoo xam ne ne installé nañ nit ñi te nax dafa te recours am fa am dëkk yoo xam ne ne installé wu nit ñi te ñu ne euh, lu fa euh, lu mu am recours moo tax. yow dañ la bëgg a jaay doole nga jàpp. mais dañ ma bëgg a jaay doole mais ils ils hier on leur a montré que ne la population dans sa globalité est avec nous. lu ñu leen wan lii lu tuuti la ci dañu leen bëgg a jaay doole waaye xam nañ ne doole gi askan ngay ko yor. mais jàpp mais jàppoon ne président Macky Sall loo xam dafa ne si ginnaaw. je pense pas je ne pense pas. et moom tamit maa ngi koy ñaan pour wan kane ne pour wan askan bi question bi ñu bëri ñu ngi koy posé man gëm naa ne ne xam nekkul ci ginnaaw mais pour wan askan wi ne loxoom newul ci newul ci lii nii lu muy def nii ànd euh, àndu ci na jox ordre ñu mu war a jox ordre pour ñu installé ñu parce que moom it mooy la clé de voûte des institutions nit ñi dëkk moo war a doxal dëkk bi kon président man Ahmed benn Bengelloune mi nga xam ne ne yàgg naa la jàppale lu nekk daj naa ko te awma benn poste ngir sa pour nga falu ak nga faluwaat man maa lay wax ne volonté ko ak Kaolack bi nga xam ne exprimé nañ ko nga fexe nu ñu ko matérialiser nu mu gën a gaawee muy lan l'installation de leur nouveau président conseil départemental. d'accord lan ngay tàggoo. ay kàddu remerciement d'abord ay kàddu remerciement ñan laa njëkk remercier yéen la presse ndax démocratie Sénégal tey su avancé ba am yéen taxawaay yéen waa presse yéen presse bi dox ngeen ci jéego yu sëkk suñ demee ba sàcc élection yombatul. def ngeen ci mu lu jóge mat sëkk suñ demee ba sosal candidat pour nangu victoire mëntu nekk yéen joué ngeen ci rôle bu am bu am doole. di remercier coalition bi nga xam ne nag avant ñoom sax damay remercier population Kaolack ndax nag ndam lii ma am seen ndam la ñoom ñoo génn voté ci biir population boobu noonu maa ngi remercier waa ànd nawle ànd liggéey yëpp coalition bi monsieur Serigne Boub mi nga xam ne moo ko teg sur sur place mu nga xam ne ne def na ci dooleem xelam jotam lépp remercier Serigne Boub nag mooy remercier mboolum leader bu nekk ci coalition ànd nawle ànd liggéey maa ngi remercier la conférence des leaders des structures yu composé coalition ànd nawle ànd liggéey su ma limee damay juum moo tax bëgguma euh, bëgguma remercier waa Kaolack Nouvelle Vision sama mouvement jàppale nañ yàgg nañ ci mbir mi mais mosuñoo xàddi amul kenn koo xam ne ànd naag moom ngir xaalis waroon mënoon nañ seet ne kii de du ñu jox xaalis kii de amul post waaye déedéet tey lañ gën a jàpp depuis 2012 bu ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu di remercier tamit démb ñi ma gis ci marché bi population Kaolack yëpp génn maa ngi leen di remercier ñi ci marché bi ñu ko euh, ñu ko venir assister j'ai vu des gens de l'opposition mais noonu laa gisee des gens du pouvoir gis naa ñu waa APR yi ñi nga xam ne ah ne waaw waaw monsieur Fadilou euh, Keita Pastef ñëw na Pa Jokel Gadiaga mi nga xam ne ne moo ngi ci yeewi ñëw na gis naa ci euh, son fils euh, Gadiaga mi nga xam ne Y'en a ñëw na activiste yi gis naa leen azo gis naa leen ñëw na Ali loo ñëwal parce que dafa feebar moom it benn activiste bu nekk Kaolack la su ma limee damay juum mais yaa dem Kaolack ñi ñëw ñëpp mënu xamoo leen en tout cas toute la population de Kaolack ñëw na société civile ñëw nañ gis naa waa FRAPP seen taxawaay bu ñu ci am pour wane ne affaire bi dafa dépassé ànd nawle ànd liggéey kaw la yëpp ñoo koy xeex mais di la wax tamit les étudiants ils étaient hier ils étaient gis naa sax ñoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ne nee nañ dañoo gis ne un jeune dañuy jaayu doole. moo tax ñu maa ngi leen maa ngi leen di remercier ndaw Sénégal yëpp maa ngi leen remercier maa ngi jot seen message de félicitation adduna bi yëpp laa wax war a wax sax nag parce que depuis le Maroc les Kaolackois qui sont au dugg nañ ci sax. dëkkuñu Kaolack bokkuñu Kaolack mais dañu am sympathie Kaolack rek gis naa nu ñu ci nu la mbir mi yittelee partout dans le monde ñoo ngi may soutenir ñu su may soutenir yooyu yëpp nag maa ngi leen remercier duma ma fàtte suma famille professionnelle waa DGID gis naa ñoom ñëpp ñu ngi may jàppale message de soutien yi maa ngi leen di maa ngi maa ngi leen gis naa ko la ma famille religieuse du ko fàtte ñoom ñëpp ñu may jàppale donc di fa tamit sama famille politique ñoom ñëpp daal sant naa leen gërëm naa leen. di terminer par message di wax ne monsieur Ousmane Kane ak monsieur Ahmed Tidiane Diaw ñi nga xam ne ne kenn Ousmane Kane c'est le président du conseil euh, c'est le président. cour d'appel ne ko nit ci lu muy liggéey lay juume te ku dul yàlla da ngay juum man damay juum ñu ñëpp dañuy juum juum. reconnaître njuum dellu ci ginnaaw du def lu dul màggal nit ki ñu ngi koy ñaan li nga xam ne ne ordonnance bii mu jël bi nga xam ne ne tey mu ngi porte préjudice waa Kaolack mu dellu ci ginnaaw comme nu ko homologam naataangoom bi nekkoon Podor ak saint wi defee defoon en 2014 di wax monsieur Ahmed Tidiane Thiaw préfet dañ la teg fii nii pour nga doxal yoon yoon bu njëkk ci yoon nag mooy la loi la loi vous donne l'obligation de nous installer dans les quinze jours qui suivent notre proclamation def ko soo ko defulee nag yaa ngi engagé sa responsabilité te su combat nag dinañ ko mu mëne en respectant les voies et moyens yi ñu yoon jox incha allahu rabbi